ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant tey dañoo ñëwoon ak les camarades délégués de l'université de Thiès euh, avec la conférence de l'université de Thiès avec euh, les autorités du CROUS et du rectorat dañoo ñëwoon pour xool un peu campus yi ci yan état lañ toll donc bi ñuy tëj dañoo dafa dañoo dëgmaloon benn comité pour xalaat ci réouverture bi parce que dañoo teel projet projeté wu ci réouverture bi parce que tëj fu mu amee rek ubbi dina amaat ci loolu ci euh, réflexion boobu noonu bi ñu ko amee ci la ñu saisir CROUS ak rectorat ñu waxtaan ci condition wu reprise bi bi ñu waxtaanee am na benn document bu ñu ñu bu ñu bindoon boo xam ne dafa amoon ay recommandation ay tegtal yu ñu jébbal CROUS pour ne leen lii ak lii ak lii ak lii gis nañ ne boo leen ko defee retour bi bu ñuy ñëw du ñu am benn problème donc tey dañoo ñëwoon on est à moins de 24 heures suba ak jàmm incha allah la étudiants yi di ñëw. pour xool un peu état des lieux bi ñu ñëwee nag gis nañ ne que ne le protocole sanitaire maanaam euh, dispositif yi ñu war a jël euh, moyens yi ñu war a teg pour étudiants yi bu ñu ñëwee ñu nekk à l'aise ñu mën leen a identifier xam kan moo feebar kan moo feebarul kan moo am Covid bi kan moo ko amul fan la nit ñi di jóge aussi pour bu ñu feebaree ñu xam cas contact yi loolu noonu yëpp gis nañ ko gis nañu aussi que ne CROUS def na ay effort jël na. ay plateau hygiénique yoo xam ne suñuy étudiants defaroon nañ ko ci seen ci seen xalaat jël ko pour euh, remettre ko encore au service des étudiants pour bu ñu ñëwee euh, plateau hygiénique la dinañ ko utiliser avant ñuy dugg ci campus yi bu ñu duggee ñu utiliser ay fiches de renseignement ñu def visite médical ba xool exactement ba mën daal aar ñëpp daal ci université de Thiès ñëpp duñu ñëw parce que dañoo toog def benn daje benn daje bu mag boo xam ne kilifa yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci université bi toog nañ fa toog nañ fa ànd fa ay médecins bi ñu ñëwee nag ñëpp dañoo toog déglu médecins yi parce que ñoom ñooy expert ci wàllum santé ñoom ñoo xam maladie bi ñoom ñoo xam condition yi nga xam ne moo ñuy permettre ñun du ñu maladie bi du du ñu amal gàllankoor te bu ñu parce que bu ñu amalee gàllankoor day amal gàllankoor suñuy parent amal gàllankoor suñuy professeur amal gàllankoor région bi ñu nekk parce que université ñëpp dañuy dugg di génn bi ñu leen dégloo nag ñoom li ñu wax mooy na ñu def nànk-nànk nañu njëkk jël une première partie pour toog caytu leen xam ki am Covid bi ki xamul ki amul Covid bi et puis après jëlaat une deuxième partie. pour l'instant li ñu waxoon yëpp dinañ ko jël comme mesure ñun gis nañ ko waxtaanoon nañ ci bu yàgg ak ñoom et on est rassuré suñu xel dal aux alentours de 3000 étudiants ñooy bon mënuma ko wax ci wolof mais 3000 étudiants ñooy ñëw incha allah à de demain. ñoom ñooy ñëw yeneen 3000 yi dañuy xaar ba octobre ñëwaat donc mois bi nga xam ne premier cohorte bi ci lay ñëw ci la ñuy profité comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeenu wax bi ci la ñuy profité xool leen caytu leen xam ñi ci am maladie beeg ñi ci amul jàngoro bi. waaw xam nga euh, Université de Thiès dafa nekkoon au fond du tunnel on est en train de voir la lumière donc euh, yàgg nañu xeex pour conditions yi amélioré wu. léegi on voit que mi ngi commencé am ay jéego yu ñu ciy dox donc ñun kontaan nañ ci loolu gis nañ aussi comme ni ma ko waxee sànq ni il des arrangements qui ont été faits loolu ñun gis nañ ci suñu bopp di ñaan rek yàlla euh, yoon bi nii ñu nekk ak euh, rectorat ak euh, CROUS ñu continuer ko parce que université de Thiès mérité na lu ëpp lii mérité na ko parce que suñuy étudiants ci ay conditions yu jafe-jafe jafe-jafe lañ doon nekk. te teewu leen ils ont représenté le Sénégal fépp ci àdduna daaw am na suñu étudiant yu dem ci benn concours africain jël fa troisième place am na ñu dem ci ay concours internationaux bokk ci ñiy jël ndamit ñiy jël raw raw gàddu gi donc ñun li ñuy def nii daf ñuy gën a encourager parce que nit pour nga jàng il faut nga nekk ci cadre bi lay permettre nga mën exprimer say talent ñun loolu la ñu ko ñun nag euh, appel bi lu lu tuuti lay doon c'est-à-dire que ñun ni ñu toog ni ñu def ba toog ak suñuy autorité ba ñu wax ñu déglu leen ba ñun tamit ñu wax ñu déglu leen ku ci nekk mu nekk une discussion sincère boo xam ne basée sur l'écoute mutuelle ñu dégloonte ñu soppante xalaat ñoom tamit ñu am am lu ñu nangoo bàyyi ñun ñu am lu ñu nangoo bàyyi moo tax instant bii nii danañ reprendre suuf te danañ reprendre sans moom problème te au bout d'un mois ñëpp danañ ñëw et la vie va son cours normal parce que comme on l'a dit ñun étudiant université de lu ñu gëm mooy année blanche wala année invalide du option du nekk option pour ñun parce que suñu avenir moo nekk en jeu te duñ ko foowee duñ ko caaxaane bi ñu taxawee autorités yi xam nañ loolu pare nañ pour gunge ñu am na ay affaires yu ñu laaj aussi ñun tamit ñu pare pour céder pédagogique bi am na am na am na ay jéego yu ci def mais am na lu des aussi parce que wàllum bus université de Thiès université bu toj la bu tasaare ñun ñëpp nekkuñu ci même campus yi pour jàng donc li am mooy ay bus ñoo ñuy convoyé ñàkk 4 bus pour 6 000 étudiants dafa metti donc ñi ngi ñi ngi doon waxtaan ak directeur de l'AFTU te am nañu yaakaar que ni ci un mois yi nii nii nii ay bus pour euh, ay busu AFTU dinañ mën a jaar ci université bi nga xam ne encombrement yi nga xam ne ñu ngi ko doon constaté ci biir bus yi dana wàññeeku. également commencé nañ def recrutement de professeurs yi yi nga xam ne ñu ngi ñu ko doon promettre depuis bi année bi commencé ak orientation bachelier yi commencé nañu recruter un peu partout ci UFR yi donc am nañ yaakaar que ni euh, étudiants yi. en tout cas ci côté pédagogique li ñuy li ñuy li ñuy. Cheikh Abdoulaye Diagne je suis le chef des service administratifs du CROUS de Thiès. waaye yi bi ñu waxee ne étudiants yi dañuy ñëw rek lañ ko tàmbalee jël ndax bi problème mu kii bi amee feebar bi. bi mbas mi ñëw duggi see si kii bi mesures yi directeur njëkk a jël mooy boobu sax étudiants yi demaguñu mooy commencer def ay affiches ak sensibiliser les étudiants pour que ñu jël les mesures nécessaires pour éviter la, la contamination par la suite décision bu ñu bi ministre bi jëloon pour ñu président de la république jëloon pour ñu tëj université yi accompagner nañ euh, étudiants yi pour ñu delluwaat ci seen seen dëkkuwaay yi bi loolu weesoo ci la directeur ak équipe toog réfléchir ci benn comité boo xamante ne nii li liggéeyam mooy xool nan la ñu mën a envisager nan la ñu mën a réfléchir ci ubbite école bi bu étudiants yi di ñëwaat ak situation bii donc comité boobu noonu jël na aspect yu bëri muy ci ci que soit ci ci dëkkuwaay yi que soit ci restaurant yi que ça ci nekkinu même administration bi ci seen biir ba bi étudiants yi di ñëw te étudiants yi dañ leen cee boole woon ba ñoom bi ñuy ñëw xam nañ ne am na ay mesures yoo xamante ne ay mesures yu yu yu yu yu kii la yu yu xarañ la pour te moom lañ amagum pour mën a en fait def de telle sorte que feebar bi bañ a law ci ci ci campus bi loolu nag boo ko gisee mooy administration bu ñu la dénkee ay nit da ngaa war a anticiper anticipation boobu tamit moo indi ngeen gis projet yi directeur ne comme étudiants yi dem nañ seen dëkkuwaay nañu ci profito def ay liggéey yoo xamante ne ni day changé waat kanamu xar kanamu campus yi. te ñeen ñi fi ñëw yëpp ak étudiants yi ni ñu ko waxee gis nañ ne xar kanamu campusu université de Thiès yi changé na te loolu c'est un début parce que administration bu kii direction bu bees bi mu ngi fi depuis le mois de janvier donc au bout de six mois gis nañ changement yi am ci biir université de Thiès ba ñëpp ñu ngi koy rafet loolu nag du tax ñu bàyyi suñuy loxo ndaxte chaque jour dañuy réfléchir ci lu gën a na yokku nekkinu étudiants yi ci biir campus yi lu ko gën a baaxal donc loolu mooy suñu mission te ñu ngi ciy dox bés bu ne incha allah Alors, comme vous le savez, nous avons eu à faire aujourd'hui une visite avec les autorités du CROUSTE, accompagnées du directeur du CROUSTE de l'Université de Chess, du CSA, euh, de tous euh, le, les, les, chefs de service du CROUSTE. Donc, euh, nous essayons en quelque sorte de faire l'état des lieux, de savoir ce qui a été fait durant euh, cette fermeture de 5 à 6 mois où les étudiants n'étaient pas dans le campus. Parce que nous, dès qu'il y a eu une fermeture, au niveau des campus sociaux de l'Université de Thiès, nous pensions déjà à la réouverture. Nous nous étions projetés dans le temps. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions initié un comité avec le CRUSE, euh, en parfaite intelligence d'ailleurs. Il y avait un ensemble de recommandations qui avaient été édictées par ce comité-là, qui s'était réuni euh, quelques jours avant la Corité. Et depuis lors, avec le CRUS, on s'était attelé à la concrétisation justement de ces différents points qui avaient été euh, soulevés par ce comité-là. Donc aujourd'hui, à moins de, de, de, de, 24 heures de la rentrée, nous étions venus pour faire le point par rapport à ces recommandations-là. Et nous pouvons dire que, bon, il faut le dire, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par rapport à ce que nous avons vu et nous sommes rassurés. Parce qu'on a vu que euh, le protocole sanitaire, il est là, il bien en place. Les étudiants, quand ils vont venir, on va leur donner des fiches de renseignement, Il y a une visite médicale de heures qui sera faite par l'ensemble des étudiants qui vont venir. Il y a des plateaux hygiéniques qui ont été construits par nos étudiants et qui ont été achetés par le CROUS pour promouvoir justement euh, la capacité intellectuelle des étudiants de l'Université de Thiès qui est connue au Sénégal. Euh, et il y a en tout cas un ensemble de dispositifs qui sont là et qui nous rassurent par rapport à cette reprise. Alors, au niveau de l'Université de Thiès, nous actuellement 6 000 et quelques, 6 000 La reprise sera graduelle, donc nous aurons, il, y a, la moitié de l'effectif qui sera présent. Donc nous nous attendons à une reprise graduelle avec euh, la venue d'une moitié de l'effectif total. Donc c'est 3000 étudiants à peu près que nous attendons à partir de demain et qui vont venir. C'est justement par rapport à, à cet effectif-là, c'est quand nous y avions réfléchi que nous nous étions dit que, étant donné qu'on que les effectifs à la fois du CRUS et des délégués que qu'il fallait, comme le, COVID de le comité COVID-19 de l'UT l'avait préconisé, c'est des médecins qui nous avaient dit qu'il faut que la reprise soit graduelle, parce que les gens vont venir de partout dans le pays. Ils vont venir de partout dans le pays, on ne sait pas qui a la covid ne l'a pas. Et donc, il fallait que on essaie de diminuer l'effectif qui va venir pour pouvoir prendre le temps de les suivre. De les suivre de savoir s'ils viennent d'une zone rouge où il y a une forte présence du virus, s'ils viennent de zones blanches où il y a une moins forte présence du virus, de prendre le temps de, euh, les observer avec le temps de latence de la COVID qui est de 15 à 14 jours, euh, et là de savoir qui a la maladie. Euh, nous avons fait un conseil académique. Le conseil académique, c'est l'organe délibérant de l'Université de Thiès, en tout cas en ce qui concerne les questions pédagogiques. Au cours de ce conseil-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est le comité Covid-19 avec les médecins qui ont pris la parole pour dire quelles seraient les, les, les meilleures conditions pour cette reprise À partir de là, nous, nous avons dit à nos autorités pédagogiques que s'ils étaient prêts à nous accompagner, à nous comprendre, nous, nous étions prêts aussi, main dans la main, à marcher avec eux. Maintenant, pour ce qui concerne les cours, il y a les étudiants de L3, de M1 et de M2 qui vont euh, en tout cas, pour une partie de l'université. Ils vont venir, on va les accompagner, ils vont faire leur cours. Et puis, c'est cette première corte là justement, qu'on va observer en termes de santé, pour savoir les, ceux qui ont le COVID, la COVID et ceux qui ne l'ont pas. À partir du, après un mois d'observation, la deuxième cohorte va venir, c'est les L1, c'est les L2, c'est les cycles ingénieurs qui d'ailleurs vont commencer là tout de suite. Et puis à partir de là, on va dérouler nos cours et on va y aller jusqu'au jusqu mois de février. Nous, on va terminer nos cours ici à l'Université de Thiès au mois de février. C'est ce sur quoi on s'est entendu, février 2021. C'est ce sur on s'est entendu avec les autorités pédagogiques. Euh. Au niveau de l'Université de Thiès, je crois que vous, avez, tous constaté, nous n'avons que trois campus sociaux pour 6 euh, mille et quelques étudiants. Tout le monde ne loge pas. Et dans les campus sociaux, dans les chambres, les, les, les conditions sont extrêmement difficiles. Ça, nous n'avons jamais à 12 dans les chambres. Mais on va profiter de ce mois-là où justement il n'y a que la moitié de l'effectif qui est venu, c'est-à-dire les L3, les M1 et les M2. Ils ne vont pas, euh, il n'y aura pas de surcharge au niveau du campus. On va profiter de ce mois-là pour essayer de prendre des appartements à l'extérieur du campus et essayer de, de, de désencombrer un peu. Donc quand le reste de l'effectif viendra, nous avons bon espoir que nous élargirons le nombre de chambres euh, en, en, y ajoutant bien sûr ce que nous et que là, il y aura moins pour les cours en ligne, vous savez, moi, je crois que euh, c'est une utopie. Le, le, le processus même de cours en ligne est encore une utopie. Parce que les chiffres sont Au niveau de l'électrification, en termes d'électrification, le taux d'électrification au niveau du Sénégal, on est à 57%. Les chiffres sont là, ils sont consultables. n'a que 57% d'électricité, de taux de couverture en électricité, il ne peut pas parler de cours en ligne. Parce que les étudiants sont partout dans les régions, sont dispersés, sont dans les villages, sont dans des quartiers où parfois a le courant qui part euh, je crois que pas ne pas vouloir, mais c'est ne pas pouvoir. Et donc, par conséquent, moi je crois qu'au niveau autorités académiques ont tiré les leçons parce qu'ils ont à Ils ont essayé. Mais ils ont vu qu'il y avait énormément de difficultés. Maintenant, ce qu'il va se passer, c'est qu'au retour, on va encore continuer la réflexion. On va essayer de voir comment perfectionner la chose. Et Inch'Allah, si le, vraiment le, le, processus de ces cours en ligne-là est perfectionné, les étudiants n'ont aucun problème. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre. Nous sommes venus pour apprendre, pour plus tard pouvoir servir notre pays. Donc si le processus de, de faisabilité de ces cours en ligne est améliorée, nous, nous, nous serons pour, pour, pour qu'on les fasse.